ne sant nag góor gu tedd ga Cheikh Alxaaji Abdu radiyallahu ndax yéeneem moo fondement wu liggéey bii tey te ñoom nitu yàlla lu mu fas yéene yàlla def cay àndak moom ñun ñi jamono bii ñu liggéey jumaa ji liggéey bi ci jamono bii liggéey bu jafe la neef dafa fekk jamono joo xam ni ñëpp dañoo topp ci gannaaw alal di ko dàq ba jot alal ja ñëpp soxla ko waaye ñëpp wëlbatiku kenn ku ne la nga am mu néew mu bare moom la yàlla dogal dindi nga ca def ko ci liggéeyal yàlla ji ne kon ñi ngi sant yàlla waaye nag dëgg-dëgg sant Cheikh El Hadj Abdou radiyallahu anhu ndax nag jumaa ji nu mu mën a mel rek yéene Cheikh El Hadj Abdou ci biir ne rafetaay bi mu rafet nag moo feeñal yéene Cheikh El Hadj ci bés ci bés bu sell ba yéene rek bu sell la ci góor gi amoon moom nag El Hadj Abdou jumaa ji ittee leen ko lool yàlla nañu yàlla taas ci seen barke amin nee ñi nga xame ni taxaw nañu lii amuñu luñ ci def waaye nag yàlla boole ñu ci ñu ciy xëy di ci gont di ñaan yàlla di rafetal njort ba yàlla defar ko ne keroog ba ñu jëkkee annoncé mbir mi ni danañu liggéey jumaa ji am na ñoo xam ni fale lañu taxaw ni ah ñii dey seen kàddu yéene la am waaye du sotti ndax ñoom kat jumaa ji li mu laaj amuñu ñu ci def ne ñun amuñu dara waaye nag boobu ñun li ñuy annoncé moomuñu ko ñu naan jigéey alaaj Malick liggéey alaaj malik bu ñu toogee tuuti rek ñu tuuti lañ ciy dégg tur alaaj Malick néegu yàlla rek waaw moom ngay dégg nag yàllaa ko moom yàllaa ko moom teg ko ci loxo yu mu doyloo non parce que dañuy tey jii la ñuy tàmbale fondation bi pour rénover jàkka ji ne déedéet kon du dem waaye ki ci jiitu moom la yéeneem sell sunu mën a yéene mën a àgg ci yéeneem mooy Cheikh Hadj Abdou radiyallahu anhu wallahi Cheikh Hadj li mu daj ci jumaa ji dogalu yàlla la kenn mënulul dara waaye bu fekkoon ni pexe doomu aadama rek la ne kon Seydi El Hadji dana fi yàgg dana ko àggale dana fi yàgg lool àggale ko ni ko yàlla bëggee waaye nag bàyyi na fi njaboot yàlla baaxe na leen ba ñu tudd ko mu sotti ne te kenn sikkul Seydi El kenn sikkul jumaa ji kenn sikkul liggéey bi ku ko xool rek naw nga ko ne keroog ba ci président Macky Sall duggee dafa tiit e kon yéen lii ngeen di liggéey président mi nee na mi ngi taxaw mu daal ne Abdou Aziz Gueye mii yow foo nekk mu ni ko ci lii laa nekk amatul wax ne fii lii doy na soxla doy na soxla waaye lii nag jar na jonkon yàlla di ko sant rek ba keroog ngay dajeeg yàlla ne wallahi jar na jonkon yàlla di ko sant ba keroog ngay dajeeg moom ne léegi rek wax nañu fii ni bi bii sottee di ngeen gis ku sant beneen la in shakartum la zidannakum mooy loolu rek waaye bu ngeen defaree bii ba mu baax xam leen it leneen ngeen leen di xaar dolli beneen liggéey ngeen liggéey ko boo xam ni man yàlla maa koy moom tabaarakallahu yàlla nañ yàlla bole jàppale amin jàppale ñoom chimali ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi CDE yàlla jàppale leen gën a développé gën a yaatu ci réew chantier yi gën a bare projet yi gën a bare lépp jaar ci seen loxo amin ne Cheikh Sarr particulièrement ne mi ngi koy sant di ko gërëm ndax Cheikh yàgg nañu man ak moom su masaan dem Dagana këram la may abal falaa daan dëkk booba yow sa kër sotteegul waaye dañ daan wax ni kër Matar Cissé ngi nii maudu simboj moko moo daan wax muni ma keur Maxtaar ngi ni fa tabarakallah ne bu yagu rek mi ngi koy nettali léegi rek koy wax ni sa soxna moma ma daan def wa momay defaral beñe ci gamu gi rek moma andil indil beñe moo tule tous les jours ma ndékki <laughs> yéen nak càlleen ni na ngeen ak njóobeen ak njaayeen fàttali leen seeni nopp ne tous les jours rek mu jox ko njaayeen yeeg façon yooyu ñu ndékki ne Serigne mbay turandoom gaynde bi mooy def bu fajaree rek mu ñëw rek ba daal di ci amee rek boîte ba def beñe bi rek <laughs> mu daal di koy indil bu tàng café indil ko café gu tàng indi waale beñe yi rek nee ma topp ci ngeneñ rek Cheikh bii moom soxna moo ko moom <laughs> nee na mi ngi koy sant bu baax nee soxna daan na def bu demee Dagana frigidaire dama daan fekk mu chargé ko ba mu fees def fa drap de lit def fa ay serviette lépp lu kër gi laaj rek mu def ko ba nga xam ni du ma soxla leneen fenn bu ma ñëwee damay fekk lépp mat nee daal mi ngi koy gërëm bu baax nee tey wax ni cheikh yàlla bu mu am keneen cheikh nee cheikh nee na amiin ca kaw nee na yàlla cheikh nee na soxna rek soxna rek fa tabarakallahu maxtaar sëñ maxtaar xalifa bi nee na jërëjëf maxtar sëriñ bi nee na jërëjëf ci taxaw bi ne maxtaar matal nga kóllëre maxtaar def nga yëfu njaboot def nga it yëfu ku bëgg lu baax def nga ko ànd koog faamara faamara bokk mu yaru la nit ku baax la ku yiw la ne alhamdulilahi rabbil alamin ñi fi nekk ñëpp kenn ku ne na jàpp ni boppam la liggéeyal bu nit taxawee ni allahu akbar la ca yàlla tofal ci xéewal wallahi da nga jot sa wàll ne continuation rek la Abdou Aziz def nii moom la Abdou Aziz Guèye def waaye baayam moo ko dugaloon ci mbir mi mu di ci liggéey papaam moo ci jëkk a liggéey Baye Mansour Guèye mook Cheikh Ngom ne wallaay dee tax loxoom génn ci waaye bàyyiwul woon ndekete boobu chance su SD la chance su CD la sëñ Cheikh ne nit ku nekk luy chance am yàllaa ko koy jox yàllaa ko koy jox yàlla nag ku mu jox foog nga foog nga jot ca lam lay jox ne ca commencement ba ne bokkar njaay mi volontairement ñëw dugg ci xaaj malik noonu keneen noonu keneen noonu keneen nee daal bare nañ kenn ku ne mën na laalim ne daal ñu dox ba agsi fii ne xam naa ni sant yàlla ku yëkkati dara am ñu taxaw ni du jëm kaw mu jëm kaw war ngaa sant yàlla de lu sotti mu sotti waaw du sotti mu sotti degré bi ñu entamé liggéey bi ne bañ koy commencé amuñu zéro franc amuñu dara dërëm amu fi woon waaye ñu door ko rek yàlla moom lu mu dugg mu sotti <laughs> yàlla dugg ci mu sotti alhamd mu yéene mag ñi ak place bu barkeel bi ne daal fa tabaarakallah léegi jataay bi yàgg na ne ñu daldi leen di libéré maxtaar ñu daal dem ci yëfu njaayeen yi waaw ah. Cheikh Saar ak naa leen gaa lañ leen ñaanal mais dama bëgg si sa làmmiñ bi nga tudd ñeneen ñi ndax nu barkeel na mhm. léegi Kavis waa Kavis. waa Kavis. EG ñoo def euh, climatisation bi ELEC 2000. ELEC 2000. Atrium. moom moo def pavage. Mhm. ak dallage bi waaw dallage bi. Mhm. mooy Sara ab Canex. mooy Canex mooy Canex. Seratec mooy

La Ndiaye Sabos Labba Ndiaye entreprise Maas moo defar aluminium bi ku ñuy wax Youssou Gueye moo indi dàcce Youssou Gueye moi indi dàcce yi éclairage ménaré yi ku ñuy wax Samba Dansoxo éclairage ménaré mooy ku wax Samba Soho. faux plafond bi ku wax Souleymane faux plafond bi ku wax Souleymane Mbeng papa qui euh, architecte nag mooy cabinet Maodo Malik. Maodo Malik fait un cabinet d'architecte, architecte moom la arche technique la tudd. arche waaw dafa bëggoon góor gi tudd. say wala Maodo Malick rek baax na sayel ingénieurs yi ñoom ñoo yore ak Solitech ñoom ñooy bureau yi ak euh, SCAT international. bureau d'étude ak bureau de contrôle. waaw sëriñ bi daal nee na nee na ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale. jël affaire bi bàyyi leen. <laughs> non CD tey li mu am il faut mu il faut mu de participation xam naa ni ñi ngi déglu pour. man quoi dafa bëgg a jàng benn xasida sant ko. ah ah